Sunugal 24 point net l'information à sa juste bon mais le plus important quand même c'est que maa ngi gërëm di sant d'abord Mbaye Sène ci liggéey bu mu def parce que ni ngeen ko xamee depuis 2002 Bamako ba léegi. chaque fois bu équipe nationale Sénégal qualifiée ci coupe du monde wala ci coupe d'Afrique dañuy faral di yónnee benn missionnaire lu ñu woowee éclaireur boo xam ne day dem ci dëkk bi nga xam ne moom moo war a accueillir compétition bi mu xool ban hôtel ak euh, journaliste yi bu ñu ñëwee fan la ñuy war a mun a dal euh, pour mun a liggéey correctement euh, ren nag dafa am lu xaw a changé tuuti par rapport ak lu ñu doon def parce que la première fois ñuy organiser compétition boo xam ne 24 équipes dinañ si bokk donc compétition bi dina yàggal lu toll ni weer wala ak li ko rax ci dolli aussi mu ngi am ci dëkk boo xam ne. lu ñuy woowee kaaraange dafa xaw a doy tuuti ñëpp euh, doyul comme convenablement kon je veux dire mais donc euh, ñëpp xam nañu lu xew Égypte moo tax nag d'emblée rek bu mu demee visiter li toll ni cinq hôtels ak ay appartement dañuy génnee li jëm ci appartement par exemple. parce que appartement boo ko jëlee euh, te amoo kenn ku lay nettoyer tous les jours nga war fa nekk pendant weer par exemple day jafe tuuti ci journaliste pour mu mun a def liggéeyam convenablement ba pare encore boo jëlee appartement daanaka. te amul foofu fi ngay defaree ndékki amul foo fi ngay toggee añ loolu yëpp day jafe donc il faut nga yóbbaale ay kii pour nga mën a defar ndékki mën a defar añ et dëkk bu mel ni Égypte la te xam nañu Égypte aussi tourisme bi dafa xaw a bu baax dañu tànn rek hôtel ñu am nag ñaar yu proposition yu ñu indil ñaari hôtel yëpp wax naa leen fii te wax dëgg yàlla lu ñu proposé doy na suñu xel benn bi daf ñu proposé hébergement Euh, proposé ñuy ci biir hébergement bi day am añ reer ak ndékki beneen bi proposé ñu hébergement seulement ak ndékki ñun nag dafa am lu ñu jotoon a dund en 2004 ak 2006 ci dëkku naar yi euh, généralement soo ñëwee ci hôtel ak ñun suñu liggéey jafe-jafe yi ñuy jànkonteel par exemple mun nga dem seetaan benn match Sénégal mu nekk guddi boo ñibbisee match bi jeex 21 heures 22 heures nga ñibbisi li ngay xalaat mooy d'abord ñu nekk Ndakaaru il faut nga yónnee say papier donc doo tal lekk da ngay naan da ngay yónnee sam papier te généralement hôtel nag mënoo ko obligé naan da ngay ubbi hôtel bi ba minuit ba une heure du matin ba deux heures moo tax nag ñu lu ñu gënal mooy journalistes yi ñu choisir hôtel boo xam ne ah, euh, suñuy fay dañuy fay juste euh, lal bi ak petit déjeuner bi maanaam ndekki bi añ bi ak reer bi ñu bañ ko ci dugal ku mu neex nag mu mu mu xool fu muy añee parce que foofu ñëpp xam nañu añ bi aussi ak bi taxul mu jafe lool su ñu demee nag comme ni ñu defee woon en 2017 euh, yàlla dimbale ñu ñu fekk fa ay sénégalais parce que day jafe lool euh, séeréer yi nekk weer lekkuñu ceeb lekkuñu suppu kànja ñu dara bu ñu fekkee sénégalais yoo xam ne dañuy dañuy togg lu ñu defoon en 2017 incha allahu rabbi dinañ def dinañ def suñu kéemtulaay kattan pour jéem a reproduire lu mel noonu euh, beneen aspect bi. mooy ñëpp xam nañu aussi Sénégal bu jàllee premier tour euh, dina am benn déplacement bu muy def benn match boobu rek lay war a def fële ca Suez diggante Caire nag ak Suez daanaka cinq kilomètres la. donc foofu l'ANPS dina fexe ba trouver euh, benn bus boo xam ne pour yóbbu journalistes yi ñu dem comme ni ñu defee woon Samara boobu jarul nga ñuy fanaan parce que cent trente cinq kilomètres moom yàggul. mun nañ dem seetaani match bi quitter le Caire le matin par exemple dem seetaani match bi bu match bi jeexee ñu may journalistes yi lu toll ni par exemple 2 heures de temps wala 3 heures de temps bu ñu paree ñu jëlaat suñu bus ñu ñibbisi euh, ñu fanaan ker donc ce qui veut dire que su lépp jaaree yoon mun na am ñu toog Caire du bi sunu entrée ba Sénégal moment bu muy bu muy jógee foofu loolu moo tax nag ñun tamit ñu jéem a aussi wut beneen kaaraange boo xam ne ci contrat bi parce que doo ñëw rek nga ne hôtel bi man damay ñëw di toog. jour bi ma ñëwee ba final ba li ñuy jéem a xamal sunu gars yi nga xam dañuy liggéey ak ñoom dañ leen ne dafa am premier tour am huitième de finale am quart de am demi finale. donc lu ñuy jéem a ak ñoom léegi nii premier tour bi rek la trois matchs yi Sénégal di football Sénégal day football le 23 football 27 football 1er juillet donc le 2 juillet incha allah suñu premier contrat bi foofu lay war a yem. su Sénégal jàllee nag dañuy dugal benn clause li ñuy woowee en tacite reconduction maanaam jarutul sax ngay wax ak man jarutul may wax ak yow dañuy continuer rek damay tëdd hôtel bi ma nekkoon rek ma continuer yow tamit ma ñëw continuer di la fay donc loolu aussi suñu eggee ba demi finale moom kooku moom ce qui veut dire dinañ fa toog ba le 19 wala le 20 parce que boo eggee demi finale forcément soit da football troisième place wala nga football finale donc euh, loolu moo nekkoon premier aspect boo xam ne bëggoon naa leen ko relever deuxième bi ci wàllum compagnie yi nga xam ne jéem a jéem nañu liggéey ak ñoom fu mu toll nii benn compagnie moo ci xaw a gën a moins cher mais problème am rek mooy guddaay bi mooy éthiopienne boo jógee Ndakaaru jaar ba ma ko wàcc fa def escale daw après continuer dem Addis Abeba jógee Addis Abeba way waay waay Turquie aussi da ngay dem ba Istanbul après ti nga jowaat boobu mun nga jógee fii daanaka daal li ma si bëggoo wax foofu c'est que amul benn vol direct foofu dañ koy bàyyi à l'appréciation des organes de presse ku mu neex mu jël bu ko neex mais dañu leen doon wax rek par rapport ak ñun lu ñu jot xool lu ñu jot xool tey xam nañu éthiopienne moo gën a yomb ci wàllum prix ñoom tamit nag war nañu war war nañu en tout cas instant yi ni jënd seen billet parce que tamit nag avion ak car rapide du benn plus ngay bàyyi approche kii bi di ñëw plus affaire bi di gën a cher par exemple boo buggee ñibbi sax par exemple le 20 day fekk tout le monde veut rentrer le 20 mais si tu veux rentrer par exemple le forcément yow mii ak yi di ñibbi le 20 doo leen doo leen tolloo tarif donc loolu ñëpp xam nañ ko organe de presse yi aussi xam nañ ko beneen aspect bi aussi si mbay seetlu mu ñu indil hôtel bi ñuy nar a dal dafa am connexion déjà ba pare mais comme ñun du ñu nekk ci hôtel bi tout le temps tout le temps bu mu bu muy bu mu bu mu demee foofu dafa xool aussi opérateur bu gën a baax comme fii nii Sénégal mun nañ mun nañ dañuy wax fii ay Orange di wax ay Tigo di wax ay Expresso ñoom foofu seen opérateur bu gën a nekk leader bi mooy Vodafone boo ñëwee boo jëndee puce Vodafone par exemple mun nga am connexion si sa téléphone mun nga ko am sa bus mun nga ko am ci marché bi mun nga foo munta dem mun nga fa am connexion et boo bëggee benn affaire envoyé aussi mun nga bañ a nekk sa néeg sax mun nga envoyé fu la dem donc loolu mel ne kon beneen point bi mu bëggoon jox beneen aspect bi mooy seen xaalis muy tudd livre ku fay dem aussi bu mu yóbbu CFA loolu séeréer yi laay waxal na yóbbu dollar wala euro échanger ko fii <laughs> waaye les pël bien tey jii nii seen livre bi mu ngi toll trente cinq franc fa benn livre mu ngi jar trente cinq franc CFA loolu yëpp ci information yi la su ñu amee lu ñu bëgg nag ñun euh, li ñu gënaloon mooy par exemple si journaliste yëpp dañuy jógandoo fii par exemple le 19 wala ñuy jógandoo fii le 20 ñun dañuy fexe ba yónnee kenn koo xam ne day jiitu journaliste yi comme ça léegi pour faciliter leen mbir mi mu jël bus accueillir leen aéroport ñoom ñëpp. ñu mun a mu yóbbu leen directement hôtel bi su fekkente nag ku nekk day demal boppam kooku moom xam leen ni eh, soo leen ñëwee déjà su fekkente ne boobu ngeen choisir en tout cas c'est ce qu'on demande euh, boo wàccee am na train am na bus am na taxi bon dem nañu sax ba jéem a am par exemple prix bi taxi bi 200 livres su fekkente ne tu prends les bus tu payes ay 2 livres yooyu environ 700 60 700 francs CFA wala beneen bi mu nekk 7000 francs CFA donc yooyu ce sont des ne bëggoon nañ leen ko ko jox. beneen kii bi mooy ci wàllum accréditation yi foofu tamit journalistes yi dañ fa am ay difficultés yu bëri difficultés yi ñu nag mooy eh, maanaam boo déposé sa visa balaa nga ko jot tey xaw a yàgg am na si ñoo xam ne sax def nañu 10 jour am na si ñoo xam ne par exemple comme Babacar Ndaw Faye dafa déposé ba affaire bi weesu une semaine te mu waroon dem mardi bi passé dafa waroon dem Alicante Espagne te ñoom dañ ko nee woon lundi mu ñëw lundi baaxul lundi bi sax dañ fàtte woon ñoom férié la parce que mooy lundi Pentecôte fii ñoom dañ ko fàtte woon ñu ne ko lundi mu ñëwaat mardi bi war a déposé fekk mardi bi aussi affaire bi pariwul te mu waroon dem ngoon donc mu jëlaat passeport am parce que dafa amoon visa Schengen il était obligé de partir te amul visa ñun nag dañoo am benn rumeur bi ci jot loolu rumeur kese la am na kooku xam ne journaliste la mauritanien la moo tweeté ne visa bi c'est gratuit mais ba léegi jotuñu benn lettre bu jógee ci CAF pour ne ñu visa bi c'est gratuit donc loolu dama bëgg aussi mu leer ci ci ci ci ci bokk bopp nit ñi yëpp donc bu ñu xamee difficulté yooyu nag jotoon nañ ñun bind déjà lettre ministre des affaires étrangères comme ni ñu koy faral di def yëpp pour mu faciliter ñu mbir mi. démb nag kenn ci agent am yi ku chargé protocole woo nañu ñu waxtaan ak moom ñu wax ko mu ne ma ñun ñoom comme affaire diplomatie la ñaari yëf rek moo tax ñu mun a intervenir benn bi su fekkente ne journaliste bi dafa yore passeport diplomatique. boo yoree passeport diplomatique automatiquement ñoom dañ lay bindal ñoom lu ñuy woowee note verbale dañ lay jox benn note verbale boo dee si même jour bi mun nañ la jox visa loo diggante Sénégal la ak ak yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi ko sekkal en matière euh, diplomatique euh, beneen aspect bi bu ne su fekkente ne amoo passeport diplomatique su fekkente ne journaliste bi yore na accréditation parce que foofu la coow li nekkee ñu bëri accrédité nañu maanaam ñu ngi mod ni ki mode pending pending nag mooy mooy mooy signifié ci anglais en cours de traitement ñu ngi koy traité jeexagul am na ñeneen ñoo xam ne jot nañu juste benn numéro mais jotaguñu accréditation bi am na ñeneen ñoo xam ne nag dépassé nañu sox pending soo ñu demee si seen boîte dañuy gis foofu approuvé maanaam jox nañ la accréditation donc mais loolu yëpp bi ma ko ko waxee moom dafa ma ne ñoom li ñu mën a intervenir mooy koo xam ne dafa yore accréditation bu ko imprimé ñu jox leen liste bi nga xam ne journaliste yii dañu yore accréditation mais seen visa dafa xaw yéex ñoom mun nañu intervenir directement auprès de l' pour mu yombalal ñu mbir mi mu bañ a nekk ay 5 jours mu nekk dans 3 jours journalistes yi jot seen ay seen ay accréditation yooyu aussi nekkoon na information boo xam ne bëggoon naa leen ko jox. beneen aspect bi mooy keroog aussi dem nañu euh, waxtaani ak Aliou Cissé man a Ahmadou Bamba Kassé di secrétaire général ak euh, Amidine si di président commission organisation ñu fekk leen Saly ñoom ñoo ñu wóolu woon nag pour ñu ñëw waxtaan ak moom. ñu waxtaan nag waxtaan bu mucc ayib mu wax moom lu muy problème yu mu am ay journalistes yi ñun tamit ñu wax luñ koy reproché mais li ëpp solo rek mooy que ñun bëgguñu lu ñu daloon Kaluga mu dalaat ñu parce que Kaluga gis nga ne suñu télévision nationale sax signé woon na benn contrat ak ak euh, fédération sénégalaise de football. ba désigner benn équipe boo xam ne demul sax pour couvrir dafa dem rek pour def benn documentaire boo xam ne. ci biir kër li kii lions yi lay nekk finalement dem nañu ba ñëwaat jotuñu amuñu lu ñu bëggoon donc loolu day indi yenn saa yi ay ay problème entraîneur bi mun na yaakaar ne journaliste yi bëgguñu ko journaliste yi mun nañu yaakaar ne entraîneur bi moo warul def liggéeyam mais léegi en tout cas toog waxtaan bu ku nekk xam lan la war def am na ñaari proposition nag yoo xam ne def nañ ko ko parce que problème yi ñuy faral di am le plus mooy si si lu muy woowee moom huis clos mun nañu comprendre aussi journaliste yi mënuñu xëy rek dem la matin toog ci hôtel Lions yi suba ba jant soo loolu mënul nekk loolu moom mënul nekk il faut aussi que ça soit très clair wala mu ñëw mu ne tey man diw bugguma mu wax moom loolu moom mu ñu ko wax ñu ne ko mais boo ñu nee par exemple tey Sadio Mané du wax dañu bëggoon nga xamal ñu par exemple mun nañ désigner Bamba kase mu nekk suñu interlocuteur directement ak Karachoun Karachoun di nekk interlocuteur am mu ne ñu tey kat bëgguma Sadio Mané wax Bamba ñëw wax ñu ñu ñëpp journaliste yi tey bu kenn dem si Sadio Mané parce que entraîneur bi dafa décidé tey Sadio Mané bu mu wax mais Sadio Mané du wax mais désigné naa ñaari jour ñaari joueur pour ñu ñëw wax bu désigné ñaari joueur nag mu ne moom yenn saa day constaté day wax par exemple Pape Alioune Ndiaye waxal yow ak euh, Kalidou Koulibaly journaliste yi jaar ci ginnaaw dem di wëri beneen kii mu ne loolu du ko neex mais ñun nag dañu bëgg ñu su ñu fekkee aussi dañu bëgg benn trouver benn canevas de travail su fekkente ne ñoom joxe nañ ñaari journal ñaari joueurs yuy wax nañu yem si ñaari joueurs yu mu wax parce que ku nekk si ñun fii am na relation avec ay joueurs joueurs yi aussi bu ñu duggee seen néeg mun nañu wax ak n'importe loolu moom mënu ko tere donc mais quand loo xam ne dañ ko tëral mu officiel te dinañu mettre en place comme ni ma ko waxee woon léegi-léegi ci nas ci ci nasaraan euh, forum bu kii boo xam ne euh, groupe whatsapp boo xam ne ñoom la ak ñun pour mu faciliter liggéey bi beneen aspect bi aussi ñun ANPS dinañuy def benn groupe whatsapp comme ni ñu defee woon ci coupe du monde bi bi nga xam ne képp kuy journaliste di photographe di caméraman dem ci coupe d'Afrique bi dinañ duggal sa tour sa numéro là-bas foofu noonu ci groupe bi comme ça information yëpp ñu jox la ko parce que dañuy installer lu ñuy wooyee maison de la presse suñu waree invité Augustin Senghor nga xam ne tey kat Augustin Senghor dañu koy invité suñu waree invité Aliou Cissé suñu waree invité Cheikh Seck suñu waree invité Kaloucha Baoulia maa ngi wax nii rek parce que mais mun nañ invité ak yeneen stars donc loolu mooy maison maison de la presse bu ñuy bu ñuy kii le dernier point mooy ci wàllum koppar boo xam nga ne Orange dafa am lu ñu jot a jox xam ngeen ne aussi euh, euh, ministère des sports am na lu mu ñu jot a jox tey ci ngoon à 16h30 Augustin Senghor encore moom tamit dina am lu mu ñu lu mu ñu jox ci wàllum subvention bi nga xam ne depuis deux deux ba léegi euh, autorités yi ñu ngi ñuy accompagner accompagner ci wàllu woowu. donc loolu yëpp nag dañuy fexe rek ba journalistes yi nekk dans de bonnes conditions de performance mais quand même damay rappeler benn mbir nekk ANPS du musa remplacer organe de presse man si du liggéey. ANPS du yóbbu journaliste du quotidien suñ la nee yow yaa war a jënd ab a d'avion yow yaa war a jëndal sa bopp billet d'avion waroo foofu noonu di taxaw xaar parce que kat ministère des jox na ANPS dara donc xaar leen ba ñu jox la lii wala jox la lee non li ñu mun a def mooy facilité yombalal journaliste yi et képp kuy journaliste sportif mu couvrir coupe d'Afrique bi passé wala depuis deux 2002 mu nekk fii xam na ni lii ANPS di defaral journaliste yi loolu ñëpp xam nañ ko donc du lu ñuy wax fii ci pëcc bi parce que ñëpp xam nañu les relation souvent entre yenn organes de presse yi ak ak ak ak yi mais quand même encore une fois indépendamment de chiffres yi ma joxe woon sànq ci ci nasaraan euh, dafa am leneen lu ñuy woowee par exemple frais de mission loolu aussi il faut que journalistes yi bàyyi seen xel yenn affaires yi aussi journalistes yi moo ko war a xeexal boppam parce que kenn warula yónni ngay dem ci dëkk jàmbur pendant weer ba pare ñu leen la billet d'avion a ngi ni demal soo demee sa bopp nga indil problème rek ni nga indil problème aussi ñi nga dëkkal foofu tamit dama si dañ si war a taxaw ñu waxante dëgg képp kuy organe de presse bu lay yónni na la jox loo xam ne lii nga xam ne minimum mun nga ci dund moo gën sinon boo fa demee tamit duñ la bàyyi ngay nekk di kii mais say say say say mbokk rek ngay indi lay problème kooku tamit day wàññi sax sa sa personnalité day wàññi sa personnalité il y a un minimum requis pour journaliste nga xam ne dañu la ne dañu lay envoyé ci dëkk pendant un mois pour nga mun ko liggéey correctement loolu dama loolu laa amoon pour ma ma kii leen leneen lii nag c'est un aspect syndical bon Bamba ba Bamba Kassé xam na ko euh, tout le monde sait que mënuñu la jox euh, lii nga xam ne añ reer ak ndëkki rek te joxuñu la lenn loo xam ne mun nga ko téye te yaa ngi war a dem pendant un mois di bàyyi sa kër di bàyyi say say njaboot si si ginnaaw loolu laa amoon pour wax leen tey ci suba ma bàyyi leen aussi su fekkente ne. am ngeen ay question yoo leen di posé ngeen posé ko su fekkente ne samay naataangoo aussi yi nekk fii am na ñu ay lu ñu war a yokk ñu ñu yokk ci ngeen baal ma nag parce que olof bi c'est un peuple qui parle olof. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point